mbokki àdduna salaamaaleykum mbokki lislaam bi su ngeen gisee fii ñu taxaw mooy fi nga xam ne mooy lew na Léona lew na Niang nag quartier bi ñuy wax quartier Tawféex Tawféex nag suñ ko déggee mooy Serigne Abdoulaye Amar moo ko tuddee quartier bi di fi def màggal gu jot at gu jot mu fi def màggal ren di deuxième édition boo xam ne mooy mooy màggal gi waaye ci ndigalu Serigne Djily moom Serigne Abdou Lahad Serigne nag màggal Serigne Abdou Lahad màggal gi muy def nag màggal gi mu def turandoom la koy defal muy Serigne Abdou Lahad Mbacké moom Serigne Touba euh, ñu koy fas yéene def ren mooy deuxième édition bi daa danga may topp ñu dugg ci biir ñu ànd ma xool li nga xam ne moo xew ci biir رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين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 متعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا هجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المسولات وكفر بتلاوته عنا السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من الصهو والنسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عن عند تلاوتها وكسل أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إزهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمحذب من كل الألحان وارزقنا فضل من قرعه معديا حقهما الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان وعمنا من عذاب القبر ومن سعال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيد وجوهنا يوم البعث واتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكنا وصد الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وصائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعل أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنجزنا في الفتنة واعصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا وما معالنا واصبب سجال عفك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك زخرنا واعتقادنا وعمن من الجوع والخوف بلادنا وصائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه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 ñu ngi noonu doon tëj kaamil bi ci màggal gi nga xam ne Serigne Abdou Lahad moo koy defal turandoom bu màgg boobu di Serigne Abdou Lahad Mbacke moom Serigne Touba ñu koy defee fii ci Tawféex waaye dañuy toog ak Serigne Daara bi euh, laaj ko ay impression ci bis bi euh, sëriñ bi nga présenté wu rek. Euh, alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam defee ñu ngi sant yàlla wu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, di wax ni eh, ñun suñu présenté suñu bopp eh, ñun maa ngi tudd Ibrahima Diallo nekk imaam bi nga xamante moom la yàlla dénk fii si gox bi nga xamante ni moom mooy tawfiq Eh, su ko defee nag ànd nañu fii ci suñu mboolo bi nga xamante ni moom moo yor taxawaay eh, quartier Tawfekh bii ni imaam yaa ngi fii suñu naayib yi nga xamante ni ñoom ñoo la ñu àndal eh, ak suñu mbokk dëkkandoo yi nga xamante ni dëkkin bu rafet la ñu dëkk fii ci biir quartier bi ñoom ñëpp macha allah teew nañu ñu ngi fii ni incha allah kenn ku nekk mun lañ la présenter jaar sa tur waaye fekkente ne li nga xamante ni bu bu ñu tuddee kenn rek day yóbbaale ñu si des lépp macha allah di xamal ni daal mbooloo mi képp koo xamante ni da ngay yeewoo fii ci quartier Tawfiq eh, yaa ngi ànd ak bis bi yaa ngi teew fii tamit ci biir bis bi eh, depuis buñ koy nos sant yàlla bu baax ñun ñëpp ñoom ñu ñoo ko yëkkatindoo ñu ñoo ko nasandoo fii ci biir kër gi daanaka léegi nekk na ñetti at eh, at bu nekk dañ koy def fii ni loolu sant yàlla la ñun nag dañoo am dañoo wax ni faaqidu shay ila yudi kenn ku nekk li nga am loolu ngay joxe sant yàlla bu baax sëriñ daara yi daje nañu fii lu ñu am mooy alquranil karim eh, buñ ko laytaalee bis bi tamit loolu sant yàlla la ndaxte bis bi bisu lislaam la bisu alquran la bis la boo xamante ni eh, dañ ciy dundalaat suñuy lislaam waaye dañ ciy dundalaat suñuy diine waaye dañ ciy fàttaliku suñu mag ñi nga xamante ni ñoom ñoo dawlu woon bokk na ci ki nga xamante moom mooy borom bis bi di sëñ Abdoulahat Mbacke eh, bu ñu waxee sëñ Abdoulahat Mbacke nag mooy ki nga xamante ni eh, nitu diine la woon ku doon taxawee ci diine la ku doon dundal diine la woon kon bu fekkente ne bisam ñëw na ñu ciy taxaw eh, loolu lu muy tegtal ne ñun dañuy dundalaat diine waaye dañuy beesalaat suñu diine waaye njëriñ bi nga xamante ni moom moo nekk si eh, fàttali ko suñu mag ñi mooy que ñu xam ñoom lan moo nekkoon seen taxawaay ci diine waaye lan moo nekkoon seen taxawaay ci dundu doomu aadama ndaxte yàlla def leen eh, yombalaloon may leen li nga xamante ne di yàlla di wax si biir alquran wa allamnaahu min ladunaa ilman dafa am xam-xam yoo xamante ni yàlla subhaanahu wa taala moom moo koy may nit ki directe jóge si yàlla ñëw ci jaamu yàlla bi kon suñu mag ñooñu bokkoon nañ ci jaamu yàlla yooyu kon bu ñuy fàttali seen bis nag seen jaar waxaat seen jaamu yàlla yi ñu doon def pour ñun ñi nga xamante ni ñoo ñëw si ginnaaw ñu mun a xam fan la ñuy teg suñuy tànk ñu mun a am royuwaay bu baax ndax sallallahu alayhi wa sallam eh, yàlla def ko wax ni walakum fi rasulillah iswatun hasanatun eh, yàlla def wax ni am ngeen royuwaay bu rafet ci yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam nag dellu mu ne ñu al ulama warasatul anbiya borom xam-xam yi ñoom ñoo fi wuutu yonent yi kon ñun eh, borom xam-xam yi ñoom ñooy eh, roy yonent yi waaye ñun borom xam-xam yi lañu roy ndaxte wasila la eh, wasila boo xamante ni dafay jóge si yàlla subhanahu wa taala ñëw si jibril alayhi salaam ñëw si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci sahaaba yi wàcc si taaba yi ni wàcc si ba suñu borom xam-xam yi wàcc nag ba suñu jamono bi jaaxale yàlla subhaanahu wa taala dafa wàccee li nga xamante moom mooy alquran bi ñu doon jàng waaye ginnaaw bi mu ko wàccee eh, mu indi ay yonent yonent yooyu ñoom ñoo ñuy xamal ni ñun de yàlla moom moo ñu bind waaye xamal ñu tamit lu tax yàlla binduñu mooy wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduuni dama leen bindee ngir ngeen jaamu ma eh, ci biir jaamu boobu nag yàlla dafa indi alquran ci la ñuy jaar mooy suñu lamp bi nga xam ne moom mooy ñuy niital ñu xam naka la ñuy jaamoo yàlla waaye jamono boobu yonent yi ñoo fi nekkoon kon yonent yi nekkutuñu fi waaye alquran ba mu ngi fi ba léegi kon ñi nga xaman ne ñoo fi jaaroon ci dundal alquran waaye xamal ñu alquran firil ñu alquran ndax dégg alquran yombul eh, ci biir alquran bu dee boo ko xoolee ci araab bi rek doo ko mën a dégg waaye boo ko xoolee si benn nitu yàlla ni muy jëfee boo jëfee noonu rek te su ko defee da am yoon bu leer kon loolu mooy sabab bi nga xamante ni moo tax ñuy daje fi loolu mooy sabab képp ku daje rek di di fàttaliku suñu mag ñi loolu sabab boobu loolu mooy njëriñ bi pour ñu xam ñooñu lan moo nekkoon seen taxawaay ñu am ñun tamit ñu am royuwaay su ko defee ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu yàlla munoon la ñoo xiirtal ci leneen waaye ci lii la ñu yàlla woo wuyu nañ si yàlla si loolu ñu ngi si sal yàlla comme alxuraan ni mu koy waxee ajibu daa iyallaahi isa daakum kon woote lii woote yàlla la eh, nag dafay am sabab sabab bi mu yàlla mu ngi koy jaaree ci seen Abdoulahad mi mm-hmm. eh, sant yàlla bu baax moom dafa mel ni ñu ñoo yarandoo si benn si eh, si benn jamono ndaxte bi ñu fi dajee yàggul noonu yëpp waaye sant yàlla bu baax lépp lu ñu fi def ci quartier bi ñun ñëpp ñoo koy defandoo te daanaka bi mu fi ñëwee won nañ ñu moom jullit la te jullit taxawaay jullit la war a am te taxawaay boobu la am ñu ngi koy si sant bu baax a baax a baax ndaxte sa alayhi wa wax ni nit ki balaa ngay sant yàlla sa ngay sant sabab kon sabab bii nii ba ñu daje fii di def mbaax yii ni xeetu xéewal yii ni mm, sabab bi si moom la ko yàlla jaarale su ko defee waa quartier bi yëpp ñu ngi koy sant bu baax e, di ko ñaanal yàlla tamit yàlla na ko yàlla dëgëral yàlla gën a dëgëral taxawaay bi di ñaanal waajuram yi nga xam ne ñu ngi fiy ñëw di ko gunge si loolu li ngay xamante ni nit ki boo def lu baax Eh, boo gis sa ñi la féete kaw say waajur ñuy ñëw di la ci gunge xamal ni li ngay def lu baax la kon loolu tamit sant yàlla la bu baax macha allah ñun ñëpp daal bég nañ ci ñaan nañ yàlla bi yal nañ ci yàlla taas yàlla may ñu tamit ñu mun a dégg lépp lu ñu fiy waxtaane ñu mun a tamit roy lépp lu ñu fiy jëfee bi jaay seydil musalin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi gàttal kaddu bi daal waa quartier bi yëpp muy quartier tawfiq eh, ñëpp ñëw nañu teew nañu fii nii bég nañu lool lool lool di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla nañu yàlla may ñu yàgg ko defee ñu yàgg ko teewee tamit bi jaay seydil mursalin su ko defee fu ñuy tëjee mooy suñu rakk bi nga xamante ni daaw e, fii la ñu toogoon ak moom mu ñuy gunge e, ku baax la daanaka sant yàlla bu baax daaw fii ci biir néeg bi lañ def kaamil bi moom moo nekkoon ci biir néeg bi di ñu waxtaanal di ñu di ñu di ñu lépp loo xamante daal lu fa jullit waroon taxaw fu sëñ Abdou Lahad waroon taxaw daaw moom mu ngi ko taxawee woon lii la yàlla soob tamit nangu nañu ndogal yàlla boobu yal na ko yàlla yërëm yal na ko xare ajjana bi jaay seydil mursalin salaamaaleykum wa rahmatullah incha allah fii nga xam ni fi lañu nekk muy tawféex te sëriñ Abdou Lahat euh, Amar di amal màggalu turandoom gi nga xam ni moom lay def at bu jot fii ñuy ñaan yàlla na ko tàmbali téeméeri at yu tàmbali ren di ko ñaanal gudd fan ak wér loolu nag la ñu alxuraan lañu ñu ubbee bis bi di ko di xaar nag ay waxtaanu kilifa ci biir dinañ ànd ak euh, ki nga xam ne mooy sunu mbokk bay As Ngom nga xam ni moom it ñoo bokk liggéey bii ñuy def ñu wuutu ko fii rek. ci ci tàmbali gi waaye ci kanam dinañ ko bàyyi moom it mu dugg àggale ay waxtaanam. jërëjëf Siré gannaaw ba nu sante buur bi subhaanahu wa di julli ci yonent bi tedd bi salallaahu alayhi wa sallam di sant sunu yaakaar teeg ëllëg Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul di ñaan Sëriñ Muntaxa Basiru sunu borom yàggul ko fi loolu te ma ànd ak wér di am mbégteeg lool ak ziar ak euh, contacté goo xamante ni am na fu muy tàmbalee am na fu mu yem ci ki nga xamante ni. moom moo woote bis bii tey di kilifa ci ñun di lépp ci ñun muy sëriñ Abdou Lahad Amar di nga xamante ni dafa def loo xamante ni ñun ñii ñëpp te demuñu Touba dañ ko cee war a sant ndax màggal gii ñuy màggal Cheikh Abdoul Ahad nga Cheikh nga xamante ne Abdoul Ahad référence référence la ci yoonu Mouride nga xamante ni Mouride bu nee ba tollu fii liggéey na ci parcours bu rëy a ba léegi ay jàngaleem nit ñi dañ ciy dund. kon bu ak màggal ñi dem Touba moom mu woote ko fii ñi nga xam ne demuñu Touba. bu mu ñu mën koo ànd ak di ko dund kon dañ koy delloo cant gi ak ngërëm gi di ñaan yàlla na ko yàgg teewe ay ati at yu bare bare bari lépp lu yéene ji am de yàlla na ko kàttan gi ëpp ci barkeb Cheikh Abdoul Ahad di ziar it nee mi joxe kàddoo ak cant ak ngërëm ci waa koñ bi tàmbali ko ci imam bi nga xamante ni mooy imam Diallo nga xamante ni depuis bi mu jàppee bis bi ba léegi yéen a ko ànd ak moom yéen sax yéen gën a bëgg bis bi ndax fi mu yéen a nekk ci alxuraan gi seeni njaboot yi ñoo nekk ci waañ bi kon ñu ngi leen sant di leen gërëm nee bi ngeen àndee fii nga xamante ni comme ni nga ko waxee rek ndax dëkkandoo boo léegi suñu borom da koy laaj ndax bañ nañ ko sax danaan àqi dëkkandoo te àq doxul seen diggante ak moom ànd bi yëpp ànduk lislaam la ak diine ak looloo tax ak pàq bii ñu tudd ko pàqub tawféex tawféex moom moom moom ñëpp moom la ñuy ñaan ñun ñëpp sunu sunu dund tawféex rek lañ ciy ñaan kon bu pàq bi dundee tawféex yéen ñi ko fekk si ànd bi lépp doon ànduk diine ak ak lislaam lépp loolu yëkkati di ngeen ba ci moom ni ko nangam ak nangam ak nangam lu bu ci lu mu leen ci xalaatal donte jàpp ngeen ci leneen sax da ngeen jël xalaatam teg ko te boo leen jëlee xalaatam teg ko da ci am résultat kon mu ngi leen di sant di leen gërëm xam ne bis bi nii la ko bëggee tàmbalee noonu lañ ko bëggee àggale te tàmbale ko ci alxuraan jëm koo àggale rek ci xaside yeeg turu yàlla weeg waxtaane kan mooy borom bis bi loolu moo sama bis bi di ko ñaanal sunu borom doon koo dolli féex waa ko waa quartier bi sunu borom gën leen dolli tawféex nee daal sant na leen gërëm na leen gis na ne ni ngeen jàppee bis bi waaw bis bi yéen sax waa quartier bi yéen a ko ko gën a bëgg ndax bi bis bi jot bis bi teeroo rek ko ak quartier bi ñëpp génn nañ sellal barab bi yëpp fi nga xamante ni fi la nit ñi war a toog fi la nit ñi war a jaar fi la nit ñi war a dal. kon loolu ak yéene la ba pare ngeen ñëw bokkaat ak moom bis bi ubbee alxuraan seeni njaboot yi nekkaat fële ci waañ bi di di defar xéewal yi pour pour pour pour pour dalal gan yi kon mi ngi leen di sant di leen gërëm di ñaanit lépp lu mu ci am ci barke si Abdou Lahad rek yàlla na ko wasaare ci yéen ñëpp ci barke bis bi sant nañ ñëpp di sant sunu tons bi nga xamante ni moo nekk na le muy Serigne Jibi nga xamante ni boobu ba léegi itam mu ngi dox di wax lépp luy xamante ne ay taxawaay la ci bis yi pour bis yi mën a am tawféex ndax ko am xam Serigne Abdou Lahad rek xam ko ak moom di ko ñaanal sunu borom it gën koo yokk ay taxawaay. sunu nijaay la sunu xarit la boroom xel mu rafet la yàlla na yàlla dolli jàmm ci ñëpp kon daal imaam loolu la ma doon kaddu yi lu ci jub nga xamante ni lépp sëriñ bi la lu ci matadi rek nga xam ne sunu sunu sunu sunu sunu sunu matadi la di ñaan di leen ñaanal sunu borom gën leen a kàttanal ci barke alxuraan nee daal xolam sédd na guy guy guy guy guy guy ci yéen. waaw fa fi fi fi mu nekkoo sax dafa bàyyoon ay gan waaye dana day ñëw wax leen ak mbégteem ak kontaanteem ci yéen ndax parce que bu ñëpp demee it yéenay nekkaat ci quartier bi. waaw bu ñun ñëpp dañuy dem waaye yéen boo ko nekkaat ci quartier bi te ànd bi rafet lool yàlla ngeen ko dem ba ànd ko seeni sët ci barke borom bis bi nga xam ne attan na lépp kon jërëjëf di saarit waa RTT TV nga xamante ni tam moo ñëw di ànd ak liggéey bi war a jël liggéey bi cat ba cat yàlla na ko suñu borom gën a mottali daal tawféex gi daal yàlla na rot ci ñëpp ku ñëw ba ba ngay dem rek yàlla na ko tawféex gi rot te am nañ ci yàq yi ndax borom bis bi attan na loolu borom bis bi teg na ko loxo ku fi ñëw daaw rek ñëw rek te day gën a jëm kanam rek day gën a jëm kanam ndax ki woote it moo toll doon ci nit ñi kon jërë ngeen jëf kon ba ci kanam rek ah. la

ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله فعل لا إله إلا الله لا إله إلا الله فعل ربنا لا إله إلا الله نعيان فعل دلنا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 إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله yàlla yaay buur di boroom lay lay la lay bal yaa nu sàkk yaay ki nu moom lay lay la la yàlla yaay buur di boroom lay lay yàlla amul benn buur bu nuy jaamu bu dul jàll jalaaluhu haza kamaaluhu yàlla yaay waahidul qahhaaru yàlla yaay buur tey borom yaa nu sakk yaa nu moom yaa nu xir ci def lu baax ku def lu baax am lu baax ku def la neen it am la neen lay lay lala lay lay lala faal fa lay lay lala

suñu salaam wa rahmatulah. Bintu Amar laa tudd bokk ak yaay borom bis bi ndey ak baay ñu ñëw fekk la fii euh, nga toog dalal gan yi toog di leen waxtaanal maanaam yëg-yëg bi nga am tey ci bis bi ci ñaareelu édition bi nu mu toog. xol bu sedd guy ak mu jaral ma yitte yu ma amoon ma dagg ko pour ñëw. ndax kat doom yi ñi ngi gënanteen ci ndey yi ca sant nañ ko sant nañ woy juram ndax bu ñu bu nekkoon jeneen doom joo xam ne si ni du ko ñuy wëri baaku du ko ñuy seet dañuy sonal waaye doom rek lay doon ndokk nag bi ko yàlla defee mu doon doom joo xam ne lu mu def mu sedd suñu xol waaw Euh, nga ñëw fii fi nga xam ni tawféex ñu moom mu duppee ko ko nga ñëw fekk fi waa dëkk bi euh, ak ni ñu àndee def benn say ñoom ñëpp ñu ànd topp ci ginnaaw euh, sëriñ bi jàppale ko ci liggéey bi ba mu xam ni liggéey bi ni mu ko jàppee bi ñu fi ñëwee daaw ñu gis fi ren tamit mu gën a am ay tawféex wuyu turu bis bi lan ngay wax ci waa dëkk bi. di ñaanal waa dëkk bi tawféex képp ku fi yeewoo. ak képp ku ñëw ci bis bi ak ko amuñu yéen ñëw ci ñëwoo maa ngi lay ñaanal tawféex ci barke Cheikh Abdoulaat borom bis bi di la ko ñaanal ci barke sa njéeru suñu maam di kontaan ci bis bi lool sama xol seddu ci guy rëccu ma lu ma doon jure sama doom ji baalu may bokk ak moom ndaxte kat fii mu jaar nañu ñi ngi ñaan yàlla doom ji jóg jaar fi ci barke yontu yàlla Muhammad sono lu ñu jaaxaluñu ci sama kër ga la nekkoon mosuma koo àtte xuloo bokk ak ndeyam lépp yaayam yëkkati ko jox ma ko ak i magam ak i rakam lépp lu nekk ci moom maag sama rakk jee ñoo ko ci def kon nag ñu bu melee nii dañuy kontaan li ci yaayam kontaan benn dañu kontaan fukk moo ko gën ndaxte bu ñëwoon Dakar soppeeku dañ naan ñun ñoo ko yàq waaye ba mu ñëwee Dakar jikko ju mu fa indi moom la indiwaat cees ji ca dafaa jaar si rek jàll ca xam nga semaine sax ma manees na cee soppeeku waxuma la ak ay at ca li mu jëlee woon Thiès bi muy ñëw moom la indaale baalu ko raw kon nag julli ci yonent bi du suñu ngóor a ndimbalu suñu borom la sant naa ko borom bi tubaaraka wa bis bi mu nekk bis boo xam ne bisu sëñ Abdou Lahad Mbacké moom Serigne Touba la waaye bis bi dafa international lan ngay wax àddina bi nga xam ne ñu ngi lay seetaan tey yóbbante ci ñoom. xanaa ñaan jàmm ci réew mi ci barke Cheikh Abdou Lahad borom jàmm ja ak barke sëñ Saliou barke sëñ Fallou jàmm rek lañuy ñaan ndaxte réew mi jàmm rek a fi xaj leneen lu fi am lu dul jàmm jàmm ñu ko gënal. ak lu mënti doon lu mu doon ak ku mënti doon ku nekk rek jàmm ñu gënal ñun ndax jaboot lañu ca ku jaboot moom da ngay ñaan jàmm yal na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci réew jullit yépp ci barke yonentu bu tedd bi jàmm rek la ñuy ñaan la paix weextaal <laughs> jërëjëf <coughs> maanaam maag sëñ Abdou Lahat maay tàntam maag yaayam bokk ndey seen caatu yaay waaw maa tuut ci jigéen ñi daal waaye wax dëgg yàlla daal comme li Fatou Bintou wax léegi rek sant yàlla julli ci yonent bi rek ndax doom ju baax la ju neex a jur nag macha allah ndax ba mu nekkee Dakar jàmm ak salaam rek la nekk ak ñun te mu ñëwee fii tamit ba mu ñëwee tamit wax dëgg yàlla bisu ne mi ngi yëkkat téléphone dina nemmi ko junu seet jox nu cëru waajur lool nag cër bi mu jox yaayam ji rek jox nañ ko wax dëgg yàlla macha allah ñeme nañ ko lool doom junu ñeme la doom junu déggal doom joo xam ne mel ak ay dëkkam noonu la mel ak ay bokkam. du mun ne ndax diw baax nañu ne ndax mbokk yaa ko wax waaye ñun de wax dëgg yàlla li ñuy wax yàlla lañ ko seedeel ndax lépp loo wax ci àdduna te nekkul dëgg boo dee di nga ko layoo kon nag te ñaanuñu yàlla def loolu suñu àdduna ah lépp loo xamee si rek wax nañ ko fii rek day lu am moo tax ñu wax ko bu amul woon duñ ko wax bàyyi laat baax na yaru na am na kilifa teg na ay mbokkam place ku bokk ak yaayam teg na la palaasu yaay ku bokk ak baayam teg na la palaasu baay te ñun dañoo bokk lépp ñooy bàjjanam ñooy yaayam bete bete la ay yaayam ay bàjjanam ay baayam ay nijaayam te loolu lépp xam na ko macha allah. baax na yaatu na bëgg na ay waajuram yàlla na ko yàlla lafal cat ci barke xaadiman Moustapha lépp lu Serigne Touba di séddale yàlla bu ko ci kenn ëppale ci barke xaadiman Moustapha yàlla na yokk ba mu ne jumaay Touba ci barke xaadiman Moustapha moom ak i doomi ndeyam ak i magam ak i rakkam ak bépp jullit ak njaboot ko boole ñaan yàlla na yàlla barkeel barke bépp julliti yàlla jërë ngeen jëf kontaan nañ ci bis bi lool nag lool. ñu ñu gis ne kàddu yi ñu fi dégg yëpp dafa mel ni Serigne Abdou Lahad euh, dafa joxe cër mm-hmm. léegi jeunesse bi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi léegi te loolu loolu manqué lool lool lool ban yóbbante ngay wax ci àddina ci xale yi. Ah, waaw loolu nag moom dinaa ci sawar ndax jamono ñi dafa bari xale yoo xam ne si xamatuñu fu ñu teg seen tànk bu leen yàlla joxe yenn cër yi dañuy foyee seen waajur yi te waajur du tuuti kenn du ko fowe barke rek boo ko fonkee am barke ba faaw boo ko ginnaawalee tamit di nga bëgg ku la jox cër te doo ko am képp kuy joxe cër nag ëllëg dina la jox cër ndax la nga joxe woon lan lay delloo te loo leblewul doo ko fayu ko te li nga lebe da ngay fayu ko man de aw mënuma waaye depuis ba may aadama ba tey samay mag laa topp gisuma yaay gisuma baay waaye lu nu bëgg bëgg naa ko lu nu bañ bañ naa ko moo tax su ma gisee ku mel noonu damay kontaan big ci yow ndax nit amul lu dul waajuram nit amul lu dul mbokki ndeyam nit amul lu dul mbokki baayam te wallahi seede yàlla jëtati sell képp ku fonk say waajur fonk ay ñoñom mag moo gis def ko na sa ndey mag moo gis def ko na sa baay barke rek ngay am kon képp koo xam ne tollu nga ci jamono yii bu fekkee amoon nga jikkoy boobu na ko gën a dolli soo ko amul woon na ko jéem te xam ne loolu rek ay jàllale ndaw yaa nañ ko yàlla defal defal ko njaboot gépp yàlla mi mën a jubal te lu mu jubal mu jub yàlla na jubal njaboot gépp ak njaboot bépp julliti yàlla ñëpp yàlla teg leen si yoonu siraat mu tàqima teg leen si yoonu lislaam saxanu ci lislaam ak lisaan ak liimaan ñu bokk ñun ñëpp ci barke Xaadimal Mustafa jërë ngeen jëf kontaan naa torop amul ma bégewul kontaan naa ci bis bi na ko yàlla gën a yokk yokk ba yëg ko nag ba yëg ko fi ñëw ay at yu baree bari jërë ngeen jëf yéen it kontaan nañ ci yéen torop taxawaay bi rafet na yal na yàlla barkeel leen barkeel seen tele bi fu ngeen bëgg a yëg ngeen yàlla yëgal leen fa ci barke borom Touba jërëjëf merci beaucoup. man de benn tuuti Jeela ba Fall laa tudd di doomu ndey yaay sëñ Abdoulaat suñu doom jooju Amar Dikke tubarkalla macha allah di tàntam yi wax rek laa wax macha allah bisam bii dafa ala daw me ndax xam nga lu tax ma war a maam jéeri sugooy maamam te danni li Bàmba may sa moom mii li Bàmba may seen maam keneen ku ko may sa maam nga damu ndax maam bam maam maam eh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa boroom dafa jël maam Seydina Muhammad def ko xarit tubaar fakàlla macha allah Seydina Muhammad jël maam ba def ko xarit maam Bàmba jël jéeri def ko xarit doomoo ko may ko li mu am tubaar fakàlla macha allah maam sa ñii ñii dañoo war a jóg di leen ziar man ne suma ma xëyee di dem sama rakk jii dama ko ba ma nekkee ma dama ko naa ñaanal ma ma daw te ñëw te su ma ñaanalee tubaar fakàlla macha allah xeebu ma leen yàlla boole ma moom ñoom nag ma maaseeg ñoom ndeyam ji daanaka ñu doon ay seex di ànd ba nii tuut tànk ba nëgë ni te dara ñaawal ma di géwal nag di seen géwal fu ñu jëm yóbbu ma lu am may ma ko barke yonent bi moom ñun ñëpp ñoo bokk ndey sama yaay leen yar ndax seen yaay dafa teel a génn àddina seen maam ji jur seen ndey it ñun moom la xam ñun xamuñu suñu maam ji jur sunu yaay tubaarkaal ñu ay gor piir na garmi macha allah sëñ Abdoulaat su kon neexoon réew mbaamu bew mbaamu fuuy waaye tubaarkaal réewul bewul fuuyul ndax li aadama yaayam ji wax xale yi am na ñoo xam bu leen yàlla joxee tuuti teraanga rek ñu daal di bew fuuy xeeb seeni kilifa waaye xoolal man mii damaa fonk fonk ndeyam fonk ndax lan ne mbay ki say oom ndax bala ngaa baax dangay baax ki say kilifa ba pare loola baax ci ñeneen ñi ci des tubaarkàlla ñu ngi koy jaanal ñaanal jàmm ak xéewal ak mucc ak gàmmoo ngi mu koy gàmmu téeméer at ak ñaar fukk kenn di bañ ci manqué yàlla di yokk xéewal ba mu yëg ko Amar Dikke jërë jëf kontaan nañu macha allah tubaarkàlla yàlla na. lu xew mën a ma kaay def kaay dindi ba ci niroo la yi ñuy def. wóor na yàlla dem ne woon samay góor ak lañ bokk waaye dafa maa yónnee xaalis bëri na ma jox jabaram nag pour mu indil ma te xam nga rëy la ci man duñ kay ñaanal lii muy def mu yàgg koo man ay famille am ñëpp fekke ñëpp fekke bi jaay na bi Moustapha ca kaw ca kanam rek ci lu baax mun maa mun maa wax nag waaye mun ma ko jee baa ñu taal nit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 illallah illallah illallah Fall Cheikh Ibrahima Fall gaañu doo doo seen morom Cheikh Ibrahima Fall gaañu doo doo seen morom Seydina maam Aliou Aliou faal gaañu doose numéro la ilaha illallah la la ilaha illallah la la ilaha illallah la ilaha illallah faal la ilaha illallah faal la ilaha illallah Ah, ñu ngi jég euh, kenn la ci noonu kon ba tax na bisam bi nga xam ne moom lay def fii jëmi yàlla ak yonantam bi ak jëmi trondom ba Cheikh Abdoul euh, nga jokk ànd ak sa njaboot gi ñëw wuy si ko am nañ ci mbégte bu baax a baax ndax ki nga xam ne moom lañ ko duppee muy Cheikh Abdoul Ahad moom Cheikh al Khadim moom yaakaar naa ne kenn du ko laajte ci yoon wi waaw ci pastéefam digganteem ak sëriñ Touba waaye ci pasteefam ci lislaam ak doxina ak taxawaayam boo ci Cheikh Abdou ñépp xam mooy kan xamu doxalinam xam jëfam xam taxawaayam kon na bu ko yàlla defee ñu duppee ko ko mu nekk fii yàlla xiir ko ci bis bi mu bëgg koo dundal ànd kook sëriñ Sidi Mbacke mi nga xam ne mooy xalifab Serigne Abdoul Ahad di ko dundale nii yéen tam ngeen bokk ci njaboot gi ñëw wuy see ko fii nu ànd ko yéen sunu xol sedd na guy kon noo ngi leen di sant te di leen gërëm te di leen ñaanal di ñaanal njaboot gi fi teew yëpp di ñaanal sunu bopp yaakaar ju nu am ci bis bi yaakaar ko ci Cheikh Abdoul Ahad saa borom bi defal na ko te am nañ ci yaakaar bu baax ndax Cheikh Abdoul Ahad kat da doon jàmbaar joo xamante ni si kenn natt ak jàmbaaram. mu liggéeyal Serigne Touba liggéey boo xam ne ñëpp teg nañ ci seen bët ndax bi mu fi wuuta magam yu tedd yooyu di Serigne Modou Moustapha ak Serigne Fallilou Mbacké kenn nattable taxawaayam ci Serigne Touba kenn nattable ab taxawaayam ci njaboot gi ak liggéeyal Serigne Touba kon nag kooku yaakaar naa ne bu ñu ko dee wooteel bis ku yëkkati eh, ay jéego jëm ca bàyyi bon sa xel dal sa njort rafet xam ne yiw rek lay doon. kon yi woowee yàlla na ko yàlla defal jéego yi dikk yi ak jéego yi dellu yi ak jéego yi bi yëpp yàlla na ko yàlla def kon ñoo ngi leen di sant te di leen dalal di dalal gan yépp di sant itam Cheikh Abdoul Ahad bi nga xam ne itam moo tàmbali lii ba lii nu mën cee jariñu yàlla na ko yàlla dëgëral mu yàgg ñu yàggoo ànd ak moom asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa

ah Ba Ba ñu ngi lay ziar Ba Ba Kalla Ba. ah ndeysaan ndeysaan ndeysaan. voilà ndeysaan wala ñu ngi mel ak man. waaw waaw waaw. ñi ñooy borom bis yi. waaw bés bi moom waaw dañ cee am gàtt. jabooti gox la moom xam ne amul waxtu mu ñu woo xam ci àdduna xam ci bopp boppam jàpp ne lépp lu war a lijjanti ci kàttan suñu borom faaw nga tàmm noonu lay doxe moo moo indi ba jéego bi bis bii nga ko na ko nga ne ca nga bokk nga ne soow kenn mën lu kenn mën lu maanaam saa su ne ñu ngi xool lan ma sama kenn ku ne la ngay jiyante borom ko jàppal te ñaan bu baax a baax. yàlla na mooy bien bu baax a baax. waaw loolu bisam. bis du tuuti borom la ñu. sant si yàlla. jërëjëf sant yàlla ni toll ba tax na ko. is bu tarxee lépp lu ca laal xam nga dama signal bi moo ñu topp moo leen topp moo leen ñeme moo ñu ñeme moo ñu ñeme loo moo leen jiital moo ñu jiital moo leen jiital jiitu itam jiital ba tax na kon jëm si Abdou Lahad gi nga xam ne moo tax ngeen teew fii jërëjëf suñu ñaan la nan leen bàyyi moom. waaw nan leen bàyyi moom rek. yaakaar naa moom mën na borom jërë ngeen jëf. waaw waaw. waaw taxaar loo loo ah non si am naa looy. ah dëgg la bu nga jàng. ah jàngale dafa leen di yéen a jàng rek. ci njëlbeen ba boobu léegi ñu ngi fii ci taxawaayu bis bi euh, fekk fi ay kilifa fekk fi ay ni nga xam ne ñoo ñu mën a waxtaanee ci bis bi lu bari ñu taxaw toog ak benn kilifa rek ñu laaj ko sëriñ bi nga présenté wu noo tudd. Euh, Cheikh waaw taxawaay ci bis bi de ñun ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax di sant Serigne Touba. di sant Cheikh Abdou Lahad mi ñu yàlla booleel fii. di bokk fi nekk muy dëkkandoo bu rafet. tey sigil na fi sëriñ bi bu baax a baax. waa gox bi yëpp ñun ñëpp ay dëkkandoo lañ. dañoo ñëw tuxu fi waaye dëkkandoo bi rafet na. tey sigil na fi sëñ Abdoulaye bu baax a baax sigil fii képp ku di murit euh, nekk gi mu nekk fi kontaan nga ci sa xol sedd na fi ndax lu rafet rek la fiy wax lu rafet rekk la fiy ji ñun nag dañuy xëytu ba ñëw si ñun fekk ñuy ay taalibe di lépp mu jàppal ñu boppam képp ku mu xamit day ñëw boole ñu ñu jëfante ak kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ñaan bisam bi bu yàgg koo taxawee ci barke Cheikh Abdou Lahad ak mboolem jullit ñu ñu gis euh, dëkk bi fii mu nekk nii muy ay sanc yu bees tey muy ay sanc yu bees mu ñëw fi tey fekk fi mbooloo mi fi dëkk tey ñëpp ànd moom ci liggéeyam bii nga xam ne day def euh, màggal goo xam da ci màggal turandoom ñu gis dëkk bi yëpp ànd moom topp ci ginnaawam soxna yeeg ñëpp di ci liggéey bi naka nga gisee loolu loolu moom sëñ Touba moo mel noonu sëñ Touba moo kum samp ku nekk rek képp ku nekk ci béréb rek boo ko fa nekkalee mu nekkal la soo nekkee ci li nga war nekk boo wootalee sëñ bi ñëpp wuy si kon moom dañ ci li mu a nekk liggéeyal sëñ bi ak jàpp ak taalibe ak nungoo ci moom loolu moo tax moo doon yëpp bokk ko nekk moo moom nekkin bu daal ci digganteem ak sëriñ bi ku ne xam na mu ci ne yàlla tax di jëflante ñi muy jëflante def dañuy jëflante ñoom kese te yàlla kese tax nit nag boo tegee fi nga war a teg sa tànk mel ni nga war a mel soo wootee comme mbooloo ñu gis la kon ñun ñëpp moom day sant si ñàpp yaat ñun ñun ñëpp suñu bëggee di ko sant ngir taxawaay suñu taxawaay si ñàpp yaat fii ñu ko ci sant di ko ci ñaanal foofu gaa ak suñu jaam àggal ak suñu tubaab لله كل لدى لله كل لدى لله كل لدى لله كل لدى لله لله لله كل لدى أبارة الأجنة من أدلى وفي الجمع والزرى زيارة الفرق دار الأوزار شعار فرق فرق فرق بالنسبة لفراح بالافتراء أكرم ربي أفراح بخبر ليلة لخربي مع برائي حتى تأسري من بعد دوري واليوم بسرح في المياه شغل ماش نال ماش فوال مالح سرد مناح وحن ميني فوق ميني للافراء مهد العالح ابن جلالاح ابن جمالاح للاخياء خطا دموح اسم جوح وترمح سمي غائي وزاد فيه وبنى نوح وسنانهم ودت غائي خرب الاله خزب الاله خفا خزيله بنزل بغائي رزقائي خجاها بميري ليل خيري وباب ديري رزقائي خسر كماله فغر رجاله جاز المجاله لاتمائي ناله جلاله نال جماله بمتاله رب سمائي أكرم بعاله همي خياله رخ رجالي خزن النسائي نعم الوسيمة نعم الكريمة نعم المقيمة بالبصائح كاف الخرارح مع الخرارح مقتل براري براني ساي بني ريوري ما غاري بني سروري رجل ساي لوم تداي بعد النجاي عند الصباح وفي مسائي صلاة ستة بمرخ ستة تاتي باتا ما تسائي هل إسلام رب أجل ففاه كل في أقيائي هل إسلام والأمر فقام ودراسة في أقيائي ألا داخي سيبرا باخ وبديائي Fall ndax lay nañ magal Ibra Fall wala xateexi Sëriñ Tuuba nee na Cheikh Ibra Fall mooy buntu yoon wi def leen ni ñu magal Cheikh Ibra Fall wala xateexi wa bitaxi wala xateexi wala xateexi wa bitaxi aqil wasaxi kulla idaali wala lwasiri safir basira ridda xadere mudira xaraay ala di ay aqil xaay xayra ridaa الداعي على الداعي من الماي على الخريب ليس الخروب فتن النجيم مراي على صعبه زن إجابة تلقى برد سنائي نحن رجال لهم مجال بالغنال والفقراء رد سميه على الجميع يوم الخصوم يوم النداء أربع بخير أربع بدراش لباح ميري اعتدائي بل سجاح لها جباح لها دفاع وترفائي أي سنة ba moo samay gi moo xanaa gabon nga ka ngoore ay gi may sax moo xanaa aras nga ko giire Serigne Touba Mbacké daf leen ni ñu màggal Serigne Touba Serigne Touba Mbacké moo samay gi moo xanaa gabon nga ka ngoore ay gi may sax xanaa aras nga ko giire Serigne Touba Mbacké ba nga tekkee sa ami may ya fa njaareem cala mbaaxaan jalaaxeen joxo mboore Sëriñ Tuubaa Mbàkke yow la yàlla ndama si mboolem ni fi jaaroon Sëriñ Tuubaa Mbàkke yàlla moo ñu ko yët ay yàlla feew mi foo jële kii Sëriñ Tuubaa Mbàkke def leen ni ñu màggal Sëriñ Cheikh Ibra Fall Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa Mbàkke Sëriñ Tuubaa Mbàkke mënatuma jekki te ma neetuma jooy sëriñ Sanu Ba Sëriñ Saliou Mbàkke ci àdduna yaa mënu jooy mënatuma jekki te ma neetu may jooy sunu sang ba Serigne Saliou Mbacké ci àdduna yaa mënu jooy Serigne Saliou Mbacké waje ko masaana gis mu gis la ko mën a daa gisit ko kenn daw si sam xel Serigne Saliou Mbacké waje ko masaana ñam mu ñam la ko mën a daa ñamit du dox ko ke safula ya Abdullahi xul bismillahi alhamdulillahi ndogal li kaana bur yàlla mooy buur nguuram nga mooy ngoor wax xam ja daa woor sëriñ Saalu Mbàkke dem na kuy jaali Baay Saal mu ne fu leen ni ñu màggal borom xel ko yaaga borom dagan borom dokaan sëriñ Saalu Mbàkke xam naa ku si jooy damam nga ngay jooy ku si batam tooy xam ma ne war naa ku weeta bi jooy ma jadana jooy ku sama ya booy sëriñ Saalu Mbàkke dem na sëriñ Saalu Mbàkke a ngay jooy weeru koor ma ngay jooy Tuuba ma ngay jooy dem Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké ku jul woon géej Cheikh Bamba laay laaj borom da ko laaj mu ji dem na laa ilaaha illallaah Cheikh Ibra la ilaha illallah la ilaha illallah Cheikh Ibra la ilaha illallah Zainabu sona balla man jaya budar da fan la ilaha illallah illallah la na boo soxna bal la maam njaay abu daar daa faal njaga lay lay la la illa la barke borom Tuuba yàlla ñëpp am jàmm jërë ngeen jëf حج جنابي من جوار مسرقة ومسرق بالمصطفى بن مدركة بارك لي الله ما في القياس بمن جعلته يا إلياس انظر جنابي هند سير وهدر ولك خربني بجاه ابن مدر تفضلا علي ربها أسر فيك وفي خير الورى نور النسر هديتني يا خيرها للخدوات هنجست للوحدة بأفضل المواد وهبت لي فضلا إلى الجنان ارفع كل بن بالأدنان بركة الصديق والفاروق حمية مجموح والمفروخ أكرم رب العرش ذا النورين ووالدا زبتين في الدارين هبت صحابة نبي الاتقيا حليم رضوان مجرى الازقيا فالهين من له العزوم أهل فجنده معزوم رفع أهل البدر الإسلام وساسها الفجار والسلام باء بما يسوءه الخناس وسر من له أنا خناس كان لنا توحيد والفقه ما تصوف بمن هدانا خما هدية الله ودود سمدي حب خطاياتي بالنبي المحمدي هدية الله ودود الوود سمدي أبقت حياتي بالنبي المحمد رام الورى نيل فضل المسرحين له والفضل عند رسول الله خرار قلبي لو فيتا بالجسم تكرار أنه للهدى والنور جرار هلوم جسمي دابا في الجلوس بلا حلم ولا عمل ونفس قرار ما زال للخير يدعوه ويجسبه ولسعادات دهبا وهو قرار حلمه وهو في قهر وفي كبل باسم ربي والمحبوس مبرار غداق جسمي هم القلب يطلبه من المناقب تسويف وإسرار فاليوم وجعت وجعي تائبا أبدا لا توبة ما أدنى أخفار سرين بمبنين غفار حاول يغفر ذنوبي وفقك انت بلي بمن علي لترك سورها بمن يخاطبني في سور روضته بيتان من قول من بالحرف أمار فرما تعب وإن ستت بك دار وهل من دون عزهل ووار لا يمنعن بهد من زيارته إن المحب لمن يهوى الزوار إليك خطبت من قولي ومن حملي ومن جميع الذي قد كنت أقدار وجهت وجهي إليك dundam ci yàlla mim gëm alxuraan di mbégam sëriñ abi bu dem na jeeloon na dundam ci yàlla mim gëm alxuraan di mbégam sëriñ abibu dem na jeeloon na dundam mim yàlla mim gën alxuraan di mbégam sëriñ abibu dem na sëriñ abibu amar ibnu maam sayar amar sigil na kullu amar sëriñ abibu dem na sëriñ abibu amar ibnu baay ndonga amar sigil na kullu amar sëriñ abibu bu dem na daaram ya jooy nan dongaam ya jooy nan këram ya wet nan sëriñ abi dem na daaram ya jooy nan dongaam ya jooy nan këram ya wet nan sëriñ abi dem na seen waaya dem ajjana jee mu jëm def li ni nu magal sëriñ abi amar seen waaya dem ajjana jee mu jëm namoon na mbokkam sëriñ abibu dem na seen waaya dem àjjana jee mu jëm nanam ma mbokkam sëriñ abibu dem na jàkkaak juma tonal na ay sima fonkon na ay juma sëriñ Abibu dem na jàkkaak juma tonal na ay sima fonkon na ay juma Serigne Abibu dem na jooxey juróom naafilaak di woor di jàng bu wóor Serigne Abibu dem na jooxey juróom naafilaak di woor di jàng bu wóor sëriñ abi dem na jooxey juróom naafilaak di woor di jàng bu wóor sëriñ abi bu dem na taxawlu naa fi sëriñ abi bu maa barkeel ma man murit bi sëriñ abi bu dem na naqar du tiisa tiis ba mel ne wiiw naqar ku ñàkk sëriñ abi amar am ngaaw naqar naqar du tiisa tiis ba mel ne wiiw naqar ku bëgg du sëriñ Abibu amar deful nii nu sëriñ Abibu ku ñàkk sëriñ Abibu am ngaaw naqar yàlla doon yëgoo sëriñ Abibu amar du dem ngir moo ñu daa lu neex ba mel ne lem adduna yaaka mën a wor xamoo ku baax xamoo waloor lu fi taxaw dana ko wor sow melakaana amul solo adduna yaaka mën mën a wor xamoo lu baax xamoo waloor lu fi taxaw dana ko wor saw melakaana moom solo mbooloo mi jërë ngeen jëf ñu ngi jéglu bu baax ama première bi ci mbaaxoog sëriñ Abdou ak yaatalam ci la sàkk woon ñu teew fi te ñun de alalu Cheikh Ibra Fall lañ fépp fu nu woo ci liggéeyub sëriñ Touba bu nu ko yorandoo gis fa sëriñ bi rek ñu joxe fa suñu lépp bi ñuy ñëw it ñu ñëw ci ndigalu suñu kilifa mu Seydina Aliou ñi ngi mu sëriñ seex ndigal seen ndax sañu ñu seqi benn jéego donte ci biir dëkk bi la te woowuñu ko ba am ndigal kon ñu ngi lay jottale it nuyoo sëriñ bi te mu ngi ànd ak yow ci bis bii di sàkku it nga fasaale ko ci di ziare bu baax sëriñ Ousseynou Ndiaye ak sëriñ Mamour Sougou sëriñ Aliou Diop ak mbooleem waa axlu xasaayit di ziare it jëmm ji nga xamante ni sama xamante ak yow ci moom la jaare muy Serigne Saliou Soxna fii laa ñëw këram doon ko nemmeeku si ngir jëmmi sëñ tubaa mu ne ma am na jëmm ju baax ju ne fii ci koñ bi sëñ tubaa rek mooy yitteem keroog lañ fi ñëw saafoonteeg yow nga xamal ñu bis bii ngay waaj keroog it lanu yëg lañu yëg it engagé ngir ànd ak yow bis bii samay kàddu nag kàddu cant la rek jëme ko ci yow. ndax danga ñoo dimbali ndax amaana tey jii boo wootewuloon woote bi ku mel ni man mën naa bañ a sax taxawe taxawaay bu mel nii ci bisub sëñ Abdou bi te loolu du ngor ci ab murit sëñ Abdou ni mu toll ci yoonu murit ñu di ko màggalal nga ne ci dëkk bii ñu woote lu mel nii nga attantee croiser les bras loolu du ngor moo tax bi nu ko yëgee amatuñu sañ-sañ lu dul rek ñëw engage wu ànd kook yow te nañ ko bëggee woon sax demewut noonu ndax ñaari bis wallahi al azim yi ñu tegale tuddee nu ko muy àjjuma ak samedi mbokki taalibe yi fanaan ci ba bët set waaye ñun fajar fii lañu waroon a fekk ndax ñii de ci seen keppaar lañu yaroo mu sëñ nu jaay mii daanaa dégg am njàngam tëb suñu miiru kër di ko topp ba fa muy jànge sëñ Mamour Sougou mi noonu ñun bu nu xasee ba joxuñ dara fii ak nu ngay gis ca loolu sëriñ bi kenn mënuñoo dëpp yow nag danga woote ngir sëriñ Touba waaye bi ñu ñëwee it fekk nañ fi sëriñ Touba ñu ngi ñaan ci sa barkeb turandoo nga gudd fan lool te wér lool te am ngërëma sëriñ Touba ndax bis bi day xam naa ni muy gudd muy gàtt lu la ci dàqal ngërëma sëriñ Touba gisuma ko man ne moom laa la ci ñaanal te it moom laa ci sàkku si man fii ci barke Cheikh Abdoulaye di ñaan it am ko lii daal moom moo ci suñuy kàddu ñoo ngi sant bu baax ndax kat bi nu wootee mbokki Baye Fall yi Baye Naar mais bu ñëwee rek te na ëxlu Baye Fall yëpp fi mu toll nii Touba la waroon na dem waaye bis bii moo tax mu bàyyi lépp ñëw kon sa bis bi murid Sëñ Touba yëg nañ ko ñi nga bokkool gox bi yég nañ ko waaye Baye Fall yëg nañ ko. sëñ Basiru Mbàkke mii rek bu teewee doon soldaar sëñ Touba fii di fi liggéey liggéey bu rëy bu teewee rek waa kër sëñ Touba ñëpp teew nañ ñun nag alali Cheikh Ibrahima lañ damay dellu di ko wax aw ma frontière ci liggéey sëñ Touba Seydina Aliou ñu ngi murid saadix mu sëñ Cheikh ndigal seen moom laa yaakaar àdduna ak àllaaxira ba yemale ma ko dara waaye fu waay woote ci sëñ Touba ma joxe fa sama bopp kon ñoo ngi sant bu baax tey jégalu soxna Ndey Njaay yooyu ñoo ngi lay siyaare bu baax di soxna su baax soo xamante ni yàgg na jaxasoo dem nañ ba këram lépp lu ñuy liggéeyal sëriñ bi mu yëkkati aw ñaxam def ko ci kon bu ñu dajeeg moom fii it jaadu na ñu seede ko ndax kat kuy def lu baax dañ koy wax ngir mu sawarloo ñi ci yoon te soxna saybata day wax ni waxtaane gaay yi jeex ca yàlla dana sawarloo gaay yi jëm ca yàlla kon Mbàkke Amar Sugu ak mboolem mbokki taalib yi fi teew maa ngi tuubaat bu baax tey jéggalu lu dëng ci kàddu yi rek ngeen xam ni ñàkk mat la rek ak ñàkk mën a wax ndax ñun dañ ñoo liggéeyloo wax loo woon ñu asalaamaaleykum wa rahmatullah ربنا جل الله ففاخ كل في الأتخياء عليه سلم والأمر فاخم والأجر أعظم في الأسكياء عقل سوخي كل رداء على الوزير سيف البصير رضا الخدير مجري الغداء dal mu jeebi marti gaay ala sababa zawil ijaba yawmal kaaba rida zanay لو ما جالو نيلو نالو واختلانا ردا سميع على الجميع يوم الخزوء يوم النداء أرباب خير أرباب دير لباخي مير أو اختداي كل نصوص جاء لو تباء لو ارتفاء واحترفاي ni'mal kummaatu ni'mal ummaatu idan amaatu bilaxtivaay bima faa عافيت سوفتي رائي تنولي خير داودي بأسني خيري ما اجتيرائي فواتو ديرائي إني أقول ولا يمين لمن يصول مع الجيرائي يا سلجلالي يا متهالي يا خير والي أجب الدعاء صلي وسلم على المكلم ودري يعزم وزنوي على رسولي باب الوصول لنيل سولي أحمر صلي دواما وزد سلاما واسكر خلاما لوابيناي يا سلي رادا يا سلي فادا خالد سان آندا لبرتينا غين اعتدا زدني اقتدا زدني اقتدا بلا صفقتي فاي بلا جفاي tayu ay say tayu gadaay جناني صافي أمان وزد باراي زقزقت دايرة لقوت ميرة فلتكفي جورا لمن يوراي أنا خيسي يالي من دلالي وبالهلال خالد زراي خني تاب خذ للكتاب واقبل ما تاب يا زستيرائي يا خير ربي غير مرابي تيبتخل بحدتي داي سلم فرولا sa gi neex na waaw junnoon si barwel soxna jaara jaara ma maam jaara ma fiiru paroxaan yoonu ngi dëtëm ba coroxaan ma fiiru paroxaan waaw waaw sando xajul ci xaarande gëdëm nanu banaan bamande banaan bamande bamulaa sabali na ara menan yàlla ak yàlla mambu sobali mambu sobali mambu sobali xana ara menan yàlla ak tuddu seen doomu ya tuddu mam bamba am na moom am a atan yan bo tuddu ahmadul xadim rampana xaal la maamu ca géej te am si ndoodi nanu ko waa Tuuba gede ki ndoode te am si ndoodi ndoodi yor nanu ko waa yo ray karanga mama jara mama jara anjara ma jara ma wa man da'a bi da'watihi ila yawmi din wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam gannaaw bu nu jiitale sunu cant ci mawlaana tabaraka wa taala mi nga xam ne taw feexe nanu ñu mën a dellusiwaat fii tey ànd ak yéen ci jataay bu tedd bu màgg bii di bisu Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Ahad moom Cheikh Al Khadim Cheikh Ahmed Bamba Khadimu Rasul Cheikh Abdoul Ahad nag jàpp naa ne yoon wi kenn du ko ci laajte lislaam ji itam kenn du ko ci laajte kon ñoo ngi sant borom tabaraka wa bu baax ci may gim nu may nu fekkewaat bis bu tedd bi di ko ñaanitam mu mayaat nu nu fekkewaat ko ay ati at te lépp lu nu ci yëngu saa bi barkeel ko te nangu ko te delloo ko ci lislaam bi yépp te dollil na ko muy jéggal ak yërmande itam ci sëriñ Abdul Ahad Mbàkke mi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku ci bis bii di yëkkatiwaat sunu kàddu nan ko baaxoo di ko def di siyaare ak a feddali sunu kollëre ak sunu taalibe ci ki fi nekkal Cheikh Ahmed Cheikh Ahmed Bamba Xaadimu Rasul di sëriñ Moustapha Basir di ko ñaanal suñu boroom wéral ko te guddal aw fanam moom ak njabootu Cheikh Ahmed Bamba Xaadimu Rasul yépp di ko ñaanal yoon wi yépp di ko ñaanal itam lislaam bi yépp di jël sunu nuyoo boobu nag di ko teg ci loxoy sunu waajur yi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bii di sunuy kilifa ñu ànd ak ñoom bis bi sunu way jur yu góor ak sunu way jur yu jigéen di sunuy mag ak sunuy rakk ak sunuy jarbaat yu nu bokkal bis bi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di sunu way jur alxaaji ndonga amar ak sunu way jur soxna ndimb ak rakkam yi ak njaboot gi yëpp ñu di leen nuyu te di leen siyaare ci bis bi sunu way jur soxna ndaak amar ak njaboot gi yëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaar waaye di nuyu itam bokki deret yëpp waaye di nuyu itam bokki taalibe yëpp waaye di nuyu itam bokki pas-pas yëpp di nuyu itam dëkkandoo yi nga xam ne ñoom la Cheikh Abdoul Ahad bokkal dëkkandoo ci gox bi ci quartier bi di leen sant itam cant gu yaatu xëy na danañ ci dellu siwaat ci dalal gi ñu dalal Cheikh Abdoul Ahad ak yaatal gi ñu ko yaatal ak jàppale gi ñu ko jàppale ci bis bii ba bis bi mën a agsi fii waaye di nuyu itam wëllëre yi di nuyu itam am di jàmm yépp di nuyu itam mbooleem njabootu Cheikh Ahmed Bamba Xaadimu Rasuul gi nga xam ne fekk nañu leen fi ci suba ba léegi ñu ànd ak bis ñun ci bis bi donte mënuñoo lim tur yi yépp waaye ca suba ba léegi ñu ngi fi ànd ak ñun ak mboolem ahfaadu Cheikh yépp ñu bari teew nañ fii ànd ak ñun bis bi ñu ngi leen di nuyu te di leen dalal jàmm te di leen masaw ay coono li nuy wax mooy di ko fedd liwaat ndax ñaan du doy sunu rakk ji nga xam ne dañ daa ànd ak moom ci bis bii muy Cheikh abibu Habibullahi Amar na nga ni daaw nu àndoon ak moom te tey jii sunu borom soxla ko jël ko nuy sàkkuwaat ñaan ci képp ku fi teew fa nga tollu nga def salaatu ala nabi bu jàppandi ci yow fatihatul kitaab fukki qul huwa allahu ak benn ànd ak bismillahi rahmaani rahim fukki inna ahtaynaka al kawsara ak benn tëje ko salaatu ala salaatu nabi ñu ñaanal ko moom ak tu tànkam ba suñu borom bi teeru leen ca ajjana yu kawe ci barke Cheikh al Xadim mën na ko yàlla na ko def ndax Cheikh Abdoul Cheikh Habib Amar moomu doonoon tu tànk waaye ñépp xamoon nañ ko ci dëggoom ak pasteefam ak taalibeem bëggam lu baax ku fi jël kàddu gu ne te xam ko loolu nga seere ci moom te loolu mooy dëgg ndawam gépp ci taalibe la ko wéyal ci lu baax ci nemmiku bokk ak dox ci bokk la ko la ko jeexal loola nag alhamdulilahi rabbil alamin ndax la dale ci ay maamam ba ci sëriñ jéeri waadaan mi mujj feeñ fii ñu di ko tudd ñoo dalaloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu gàddee makkatul mukarrama ja madinatul munawwara masuñoo dañ mukk ci nekk di xeñtu lislaam ba Cheikh Ahmed Bamba xaadimu rasul feeñ ñu ànd ak moom sëriñ jéeri waadaan mi nga xam ne mooy seen maam bi ko suñu boroom defee lim ko def muy wàlliyu kaamil da ko xamal ku tedd ki muy Cheikh Ahmed Bamba xaadimu rasul ne ko dina feeñ jamono waaye yaa moom yeneen ànd jox naa la ndigalal bu feeñee ngeen ànd bi sëriñ jéeri waaye daan feeñee ba tàmbali amul njaboot muy def ku mu am bu dee góor mu dëppee ko Cheikh al Xadim Cheikh Ahmed bàmba bu dee ngeen mu tudde ko soxna jaara te booba joxanteegut ak moom loxo kon loola tegtalu suñu boroom la kon Habibullah noonu rekk la mën a mel alhamdulilahi rabbil alam ba mu melee noona mu nekk itam lu metti lu tiis loo xam ne mbooleem nun ñi di bokkam metti na ci nun lool waaye mbooleem ñi di xaritam ak ak dëkkandoo metti na ci ñoom waaye mbooleem ci umma islami bi yépp metti na ci ñoom ci ku ko xamoon ku nekk waaye nag nun ay jullit lan ay taalibe lan njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa rek la ñuy tegtaloo keroog ba nga xamee ne lu mel noonu wàcc na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay ronkooñoom ne leen al aynu tadmaau wal xalbu yaxsunu ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون rongoñ yaa ngi tuuru xol bi jàq na waaye duñu wax lu lu yàlla gërëm inna lillahi wa inna ilayhi raji'un te asabru inda sadamatil ula dañoo wax ne muñ féeteeg yàlla mooy bi natt bi dalee rek nga bàyyi yàlla sa bopp waaye doo dem ba ñàkk ba fa ne pexe na bàyyee nag yàlla sama bopp sallallahu alayhi wa sallam dellu wax ne laysa man latamal quduuda wa zaqal juyuuba wa daa bi daawati ljahiliya bokkul ci noonu koo xam ne bu natt bu mel ni wàccee ci moom mu saalit def yëfi jaahil mooy lan di pes ay lexam di xotti ay yéreem naan torox naa yàqu naa fu ma jëm te suñu borom rekk mooy wéttal walillaahi miiraasu samaawaati wal ardi lépp ci loxoy suñu boroom lay mujj kon nu ànd ak suñu waajur yi ak bokk yi ak xarit yi dëgërloo wax yonent bi sallallahu alayhi wa jooju mu wax moo tax nu mën a muñ abibullah kon noonu koy ñaanal fa mu nekk njëggal ak yërmande ak ña ko fa fekk ak ña ko fay fekk ñépp ñaanal njaboot gi yépp itam ñu yàgg leen ñu yàgg ko ñaanal bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa bu ko xamoon xam ne ak doxinam lépp taalibe la ak taalibe nag buñ ko dee wax Cheikh Ahmed Bamba Xaadimu Rasuul moo tax ñu di ko wax ndax Cheikh al Xadim Cheikh Ahmed Bamba Xaadimu Rasuul bi mu feeñee dafa daal di wax ne diinun siwa islaamihi la yu'madu indal ilaahi wa bihi nu jaddidu diine judul diine lislaam yàlla gërëmu ko taman Cheikh Ahmad Bamba xaadim rasul moom laa ñëw di ko beesal si kon nag ak taalibe rek mooy lislaam ndax Sëriñ Tuubaa xaadim rasul moo tax ñuy wax taalibe te Cheikh Ahmad Bamba ku ko xam-xam ne léppam yàlla la akub yonentam bokkaale wu leen ak dara Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne moom la ñuy defal bis bi nangoo nañ ci kàddoom bis muy wax ne am na ku mas a ñëw ci sëriñ bu sëriñ bi Cheikh Ahmad Bamba andil ko pañeb gura mu ne ko loo jublu ci loolu mu ne ko damaa dégg ne dangaa bëgg gura sëriñ bi daal di joxe ndigal ne nañ wër kër gi yépp fu fi gura nekk ñu génne ko man kenn duma ma dara ci bëgg lenn lu dul rasulullah sallallahu kon xam ngeen ne Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba xaadimu rasul foofa la tegoon tànkam may faral di wax nag ne kon loolee la ay njabootam ñi mu yaraloon boppam ma tudd ci ku mel ne Serigne Mbàkke Buso sëñ ab sëñ daam Abdourahmane loo wala ku mel ni maam Thierno wala sëñ sàmba tànk yooyee ak jéego yooyee rekk lañ doon dox ak ña mel ñoom ci yoon wi ci kër gi kon nun kër gi wala nun njabootu kër gi ci loolu rek lañ nu yar foofa rek lañ nekk te fa lañ fas yéene nekk insha allahu taala bu loolu jàllee Cheikh Abdoul Ahad mii ñoo ngi koy nuyu di jël sunu nuyoo boobu di ko teg ci loxo mu tegal na ko ci bokk yépp ak wëllëre yi xarit yi ak am di jàmm yi yi teew fii yépp ak yi amoon yéene teew ndax Cheikh Abdoul Ahad kat tuut tànk la waaye tuut tànk la boo xam ne bu neex a àndal la ni ko ñépp xamee rek ma di ko di waxee noonu noonu la nekke Cheikh Abdoul Ahad ku ko xam ca ba mu gënee dootu tàkk tatu tànk ba agsi tey jii ci njub rek nga ko xam xamoo ko ci lenn ni gone mu gane àdduna fii ba dëgër dem ndakaaru nekk fa ba dellusiwaat fii kenn mënta wax ne Cheikh Abdoul Ahad la ma ko fekkoon mu daan ko def wuute nag li mu a def ba agsi tey jii kon nag loolu defarul suñu boroom ndimbalal suñu boroom la lu ci am mbégte bu baax ñun ñi nekk magam te mu jox nu cër booba bu mat sëkk desul desulu ci daal ànd ceeg sunu way jur yi kon loola nun dana sedd sunu xol guy loola moo tax jéego yi ñuy jéego ci Cheikh Abdou nu am ci mbégte lool lool lool lool ndax bu nu gisoon mu jaar weneen yoon wu bokkut ak bii du nu mën a ñàkk bokk moom waaye dana dana nu metti lool kon alhamdulilah rabbil alamin jaaree fii kon nag maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp tey gërëm ñëpp jataay bi dafa yàgg te xat te yitte yu bari waaye sunu yéene ak sunu cant ci njaboot gi fi teew ak gi teewu te am yéene teew yépp ak bokk yi ëpp na lii kon noo ngi daaneel foofu sunu kàddu di sant ñëpp tey ñaan fi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikhul Khadim barke Cheikh Mouhamadul Waadaan nu dajawaat fi ndëgëni déwén ànd ko yokk ak mucc te mucc ci yépp ndog ak ay gàllankoor wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. toog ci kanamuk Serigne Touba kilifa dëgg la te mate na bët bi koy xoolee it xam na ko nee na bët boobu lay xoolee njaboot gi yépp waaye nee na ñoom ñaar day ba faaw rek lu nu sumb jàkkaarloog seen maam yu baax ya nga xam ni ay wàlliwu lan yoo xam ne raxuñu dara seen dund gépp ñu joxoñ ko yàlla ak ab yonentam lépp lu nu mën a song lu mu mën a doon dañ koy seen nii rek waaye romb nañ loola nee na loola nag du ñoom waaye maam yàlla nee na bu nu ci dollee seenu góor góorlu bopp lépp dana baax nee na sugu ñu lay sant bu baax di sant nag mbokki tawféex yi fi toog nee na boo gisee nii ñu ñëwee tey tey jii bi ñuy waajal bis bi borom kër yi dañoo toog bisub dimanche daal di sone ñu ubbi mu gis ñu yor ay jaasi ci ay kilifa ñi yor rato lépp luy jumtuwaay. ñu yor lépp luy jumtuwaay bu mën a setal. xam nga ne sunu sunu dëkkuwaay bii. nee na xam seen dëkkuwaay bii. ay garab ak ñax la bari. ay garab ñax rek la bari. te ku ne xam na ni bi nga fi ñëwee tey. te ku ne xam na ni bi nga fi ñëwee tey. li wër dig digal bii. li wër dig digal bii. amul amul ñax amul garab amul garab ay boroomi kër a ko def ay boroomi kër a ko doon def. ñooñu kat kon amuñu seen fay. nee na ñooñu kat amuñu seen fay. soxna yii nii ñu toogee. soxna yii nii ñu toogee. bi ñuy réunion ci wax eh, ci sama saal bii. bi ñuy réunion fii ci saalam bi. seen solin wii. seen solin wii. waxuma leen ko de. waxu leen ko de. ñoo jël engagement. ñoom ñoo jël ay engagement. ñoo ko defal seen bopp. waaye xam naa ni. waaye xam na ni. lii ngeen def tey. lii ngeen def tey. duut leen ko rëccu mukk ndax xam koy defal. ndax xam na ki ngeen koy defal ku mu doon. amu ci benn sikki sàkk. nee na amu ci benn sikki sàkk. bi muy waaj bisub sëriñ Abdou Lahad bii. dafa wax ni. bis bi jagam. bis bi jagam. moo ko teg ci sama pas ko teg ci pas-pasam. kon nii mu mel tey. kon nii mu mel tey. Cheikh Abdoul Ahad. pas-pasub Serigne Abdoul Ahad. la mu waxoon ni sunu borom nii mu toll. la mu waxoon ni sunu borom nii mu toll. ak mayam yii mu am. ak mayam yii mu am. man Abdoul Ahad du ko ñaan lu ndaw. man Abdoul Ahad du ma ko ñaan lu ndaw. mooy lii tey. mooy lii tey. bis bi nag moo yor tànkam. bis bi nag moo yor ay tànkam. man la ma waxoon rek. moom la mu waxoon rek. ku dem ma ku dem mu dem. ku demul mu dem. jaral na ko mu miiras boppam. def ko ci. ndax xam na ki mu koy defal kan la. mu ngi sant it mbokki boppam yii fi teew. kenn mënu leen a fay. am na ñoo xam ni démb lañ fanaan si woon. muy waa Ndakaaru mi muy yaayam faatu Bintu ak yaayam Adama. ak soxna Xadi mi jóge ba Ndar. soxna Sinna Fall mi nga xam ni. la boole njabootam gépp la boole. jël xéewal yu bari indil ko fii. nga xam ni bis bi daal. nga xam ni bis bi daal. daa mujjee dem. daa mujjee dem. ba mel ni muritu suñ tubaay. ba mel ni muritu suñ tubaay. jullit yi jullit yi. kenn ku ne. kenn ku ci nekk. da ngaa yëg ni. bisub nitu yàlla bi ñëw na. yàlla bi ñëw na. daanaka dafa seet nii rek. waaye sama xol sedd na guy. waaye xolam sedd na guy. bu ñuy wax Serigne Saliou soxna. waaye bu nuy wax Serigne Saliou soxna. jiite mbooloo mi yëpp nag. jiite mbooloo mi yëpp nag. dox ci doxin wu dëggal. dox ci doxin wu dëggal. woo xamante doxin woo xam ni. ku ne xam na ni. ku ne koy wër. ku koy wër. du boo ko gisul. ñëwal fii ci kër gi. yaa far ak nee naa koy maa yaa far ak man. te doo de doo des ginnaaw. te doo des ginnaaw mukk nag. maam yi liggéeyoon nañ ndax sunu maam yi liggéeyoon nañ ko démb tey doogu ñëw. te yaakaar xam na ci dara. yaakaar na ni xam na ci dara. loola doy na sëkk. loola rek doy na sëkk. loola xew na loola xew nag. gëm naa ni dara moom gëm na ni dara jafewul. ndax lépp liggéeyal nañ ndax lépp liggéeyal nañ ñu. bu ñu doxee rek jëm ca. sant naa mbokk yëpp. waaye sant na mbokk yëpp. ak dëkk yëpp. ak dëkk kenn. bàyyiwul kenn. waa Ndakaaru yaa ngi nële. waa Ndakaaru yaa ngi nële. yaayam ndaak ñëw na. yaayam ndaak ñëw na. njaboot gi yëpp. ànd ak gi yëpp. kon kenn desul. kon yaay matoo ngi nii toog. kenn desul kenn gox bi nag. gox bi nag. góor yàlla yi. yàlla yi. démb ba 3 heures du matin. démb ba 3 heures du matin. ña nga fële. ñu di ko yërëm ma demal nga ñu di ko yërëm naan ko demal nga tëddi. mu di leen ree. bi ma toogee ci ginnaaw salaat. waaye moom de bi mu toogee ci ginnaaw salaat. fii moo ngi leen gis fii ci baas bi ci ginnaaw. kon nag loola noona. pas-pas la na leen wóor ni. seen coono yi ngeen def. du niil ba déwén. incha allahu rabbi. wasalaamu aleykum wa euh, mbokk yi comme niñ leen ko waxee ci suba ba léegi ñu ngi fii ci màggal gi nga xam ne Serigne Abdou Amar moo koy defal turandoom bu màgg boobu euh, di Serigne Abdou Lahad moom Serigne Touba. di ko def fii ci fi nga xam ni mooy tawféex waaw muy bërëb bi nga xam ni moo ko duppee tawféex tey ñu gis ci euh, ay nit ñu bari ñëw wuyu si ko ci bis bi àndee kook moom njabootu sëriñ Touba gi njabootu ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi fi tey ci ndax diine waaye ñëw fi ndax lislaam tey ñu toog ki nga xam ni mooy Serigne Massamba Amar di rakk ci Serigne Abdoulaat Amar ñu dégg ko sunu kàddu waxtaan ak moom ci bis bi sëriñ bi ñu bàyyi la nga nuyoo. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi siyaar mboolem rek nga xamante ni bàyyi na ay yitteem te ñëw ci bis bi nga xamante ni moom moo di bisu Serigne Abdoul Ahad tey sant ñëpp tey gërëm ñëpp te wax ni rek ñu ngi leen di bàyyi suñu borom bi nga xamante ni moom moo am fay mu fay leen képp koo xamante ni rek teg na tànkam ci màggal gii nii rek yàlla na ko saa borom yàlla defar loo xamante ni dana kawee ak njortam. ndaxte loolu doon dong moom lañ ciy sàkku nag. Euh, ñu gis ne tey waa Tawfekh yëpp dañoo génn ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi muy waa koñ bi muy waa Cité Senghor yi koñ boo dem rek gis nga koo xam ne jóge na fa ñëw fii ndax jëmmi sëriñ Abdou Lahad loolu nag moom li koy waral moo di sëriñ Abdou Lahad moom. loolu da koo tàmbalee ca fa mu dëkk mooy ak cosaanam fa mu jógee muy Cité Senghor ngir ku ci nekk ca gox ba rek am na yow taxawaay bu rafet boo xamante ni rek. doone acam maanaam noonu la demee ci ay mbokkam ndaxte ñun ñii nii ak moom ñoo bokk ñaari way jur waaye it sak waxtu wu ci doon rek mi ngi ñuy tegtal loo xamante ni rek bu ñu ko digalee ñu ko defee njariñ dong lañ ciy gis rawatina ak nga xamante ni sax nag ay mbokki taalibeem nan ak ku mu mënti doon moom day jëflante sax bay jëflante koo xamante ni bokkut ak moom diine ngir mën a jëflante ak moom ngir jëflante gu rafet loolu noonu nag moom ak tànnif dong moom moo ko mën a am waaye loolu moom sëriñ bi li ma la ci mën a wax ba mën la ko ci wax mooy daf koo tàmbale ci ak njabootam daf ko tàmbale ci ay mbokkam daf koo tàmbale ci ak dëkkam fa mu cosaanoo muy Cité Senghor kon nag bu ñëwee fii euh, doxalee doxalin mu mel noonu ah kon dañ daan wàcc na rek ndaxte euh, nit ku ci nekk rek yaa ngi sàkku koo xamante ni doom joo xamante ne boo ko amee dafay nekk ci la nga xamante ni dafa neex boroomam te it moom dafa yor jikkoy sëñ Abdou Lahat ba nga xamante ni boolewul daraa ki wax te bokkul ci ñi nga xamante ni dafay caaxaan sëñ Abdul Ahad moom boo xoolee sax jaaru ci ak ndaw lii ñu naan ak ndaw moom jaaru ci moom léppam dundam ak lu mu mënti doon lépp sëñ Tuubaa la lépp saa yàlla lépp yonent bi la moom ci loolu noonu dong ci la nekkoon te ci la nàmpataloon ki nga xamante ne moom moo nekk uh, suñu mag di sëriñ Habibu Amar te wuy ji woon boroomam ca jamono yee weesu moom ak moom ak moom ak moom ak doomam ñun ñëpp rek noonu la ñu yaree kon moom moom suñu ablaat moom daanaka moom moom loolu moom da koo da koo da koo da koo da koo jiite ci ak dëkkaaleem moo tax. Euh, bis bi tamit euh, donte suñu ablaat Amar da koy màggal ndax turandoom bi nga xam ni mooy Serigne Abdoulaye moom Serigne Touba waaye daf ci rendre omage ki nga xam ni mooy magam di Serigne Abdoulaye Amar moom nga xam ni daf fi jugee ànd ak doomam a waaw waaw waaw loolu de ndeysaan li ma ci mën a wax rek moo di di ci dellu di ci sant yàlla bu baax ngir sëñ Abibu moom. nekkul ku gàtt fan ndax moom it ci ak dundam noonu la ko saa borom yàlla trancé moom it ak dundam jaarul ci ak ndaw sëñ Abibu man moo ma yar man ci sama jëm bopp nii ma mel ci yoonu murit di jéem di xirtalu ci lu baax lépp moom moo ko def ci man lépp loo xamante ne nit dana ko gis ci man bay am ci man yaakaar loolu moom moo ko def ci man ndax sëñ Abdul Ahad donte sama mag la waaye man ak moom liñ nekk bariwul ngir man daanaka sama gan jamono ak lu ci bari daf koo fekk mu nekkoon boori soowu gi nekk fa fa nekk fa féete foofu noonu waaye man sëñ Abibu dong laa doon gis waaye lépp loo xamante ne rek moo nekk ci man moom moo ko def ci man te it ma ko ciy sant bu baax a baax a baax loolu mu nekk it moom daanaka dafa nekkoon ci liggéeyal Serigne Touba rek nekkoon it ci néegu yàlla bi doon jooxal waxtu wi doon it jàngale alxuraanu karim ba suñu borom fekk ko fak dogalam kon loolu moom dañu ciy sant rek ku gis nag suñu kanam yi xam ni wéetal nañu te manqué nañu ci bis bi waaye nag lépp dañ koy jël rek euh, tegaat ko ci loxo yi suñu borom ndax suñu borom moom lépp lu mu def lu nekk rek moom moo gën. Euh, sëñ Massamba ñu xool ne ndaw nga. Euh, tey lan ngay dénk ndaw yi nga xam ne ñoo lay seetaan ci àddina bi euh, ak joxe cër bi ñi nga xam ne gis nañ ko ci yow ak euh, teggin bi nga xam gis ci yow ban message ngay jox xale yi nga xam ne ñoo lay xoolal ci àddina ndaw ñi moom ndaw ñi moom ndaw ñi moom message bi ma ciy joxe rek moom moo di li ci ëpp solo mooy nañuy ànd ak yar te ànd ak teggin ngir yar ak teggin moom lu mu la mënta may rek du la ko xañ te ak ak ak yar ak teggin ci la nit di sukkandiku nekk ci ba mën a am lépp loo xamante ne dana ko bëgg ndaxte nit dana yaru ba ñu boole ko ci loo xamante ne bokku ca waaye nit dana ñàkki taalibe ba ñu génn ko loo xamante ne moon moonte moom ma nga ca kon nag yar ak teggin tax sax sëñ Tuuba daf ñu ko wax yaa ayyuhal sibiyaanu laa tastahilu anil huda wa bil hulum miftahilu fastahilu bil hifdi wal ci la ma wajtalibul sa sahawa sëñ Tuuba nee na dañuy maytu jotaay wayte xet yi waccale bul ma jali sa saxaawa kon nag ñun ndaw ñi génn dénk dong laa ci am mooy nañuy moytu jotaay waay taxit yi fépp foo xamante ne jot nan ni buñ fa demee duñ fa jëlee yàlla te duñ fa jëlee yonte bi te duñ fa jëlee suñ Tuubaa te duñ fa jëlee suñu mag ñu baax ñi amuñu fa ak soxla ngir àdduna gii de dund gi dafa yàggul daara dund gi daanaka moom diggante bi ngay bi ngay judd ba ñuy lekkaam sa nopp ak diggante bi ñu lay kàbbaree di la jëbba sa borom daanaka lu ñaaw xaju fi kon ñu bàyyi loolu noonu xel rek euh, ndaw comme ci mënti doon rek boo xam ne yar ak teggin moom lu mu ko mënta may rek maam du ko xañ yar ak teggin moom moom mooy moom mooy lépp moom mooy muslaa yi lépp waaw. Euh, ñu lay gërëm bu baax a baax di la wax ni ñu ngi continuer jotaay bi ànd ceeg euh, ci kanam tuuti ki nga xam ne mooy sëriñ Abdoulaat waxtaan ak moom ci biir ñu ngi lay sant bu baax sëriñ Massamba. waaw yéen tamit yéen tamit ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax te di leen gërëm ndaxte ci suba ba léegi yéen a ngi fi di ànd ak ñun jotaay bi te it doon ñu neex direct ñoo xamante ni rek ku nekk xam na bis na muy demee ku nekk xam na waxtu temps ni mu seeree waaye ku ci nekk rek bu jógee ngir fësal yéeneem donte sax ñun ñiy ànd ak yéen des fois dañ ci am kersa ba bëgg a bañ waaye yéen sax yéen ñu ji xiirtal ngir ñu mën cee ngir ngir ñoom ñu mën cee yëg seen bopp kon loolu it ñu ngi leen ciy sant bu baax tey ñaan saa yàlla yokk télé bi saa borom yàlla yaatal ko ba nga xamante ni lépp lu ngeen ci bëgg rek saa yàlla may ko wasalaamaaleykum wa loolu la woon kii nga xam ne mooy Serigne Massamba Amar di rakk ci Serigne Abdou Lahat ñu koy ñaanal tamit yàlla na egg na yoon yàlla na àgg bay àggale yàlla sàmm ko aar ko defal ko sutura àddina sutura àllaaxira defal ko képp koo xam ne mi ngi seetaan lii ci àddina bi. fii comme niñ leen ko doon dëgtalee ci suba ba léegi defe naa ni màggal gi nga xam ni Serigne Abdou Lahat Amar mi ngi ko doon def fii ci dëkk bi. ñu tàmbalee ko woon ci bisimilah rahmaani rahim ubbee ko woon ci alxuraanul karim bi nga xam ni gis nañu mbokk waa tawféex yi jàngoon kaamil bi ci suba euh, boobu ba léegi ñu ngi ci bëccëgu kii bi tamit waaye ñu toll ci fi nga xam ni fa la tëjee jotaay bi waaye toog ak ay jëmm yu sel fas yéene waxtaan ak ñoom li nga xam ni moom moo jotoon a am ci bis bi ak niñ koy niñ koy niñ ko àndeek ñoom lépp ñu fas yéene ko waxtaaneek ñoom sëriñ bi ñu ngi lay siyaar bu baax. delloo siyaar bi wér wér wér wér. bisimilah rahmaani rahim. ginnaaw bi ñu sant yàlla. julli ci yonentam bi. di sant Seexul Xaddim. ñu ngi sant Cheikh Abdou Lahad Amar. ndax wax dëgg yàlla tam nañ cant gi am na tàmbali waaye amul fu mu yem waaye. ndax gox bi wax dëgg yàlla bi mu fi ñëwagul. lii tum woon na fi. waaye bi mu fi ñëwee léegi. wax dëgg yàlla. gox bi ji yëpp ñu ngi yëg sëriñ bi ci seen xol ci seen doxin ci seen waxin ci seen jëfin man nag man maa ci raw ndax wax dëgg yàlla sëriñ Abdou Lahad Amar fi ma jëlee ak fi ma indi man suñ borom rek laa ko seetaloo wax dëgg yàlla maa ngi koy sant cant goo xamante ne am naa tàmbalikaay waaye amul yem waaye di ci di sant tamit waa gox bi yëpp ndax wax dëgg yàlla bis bi ñoom ñëpp jàpp nañ ci. xam naa nag wax ji sax jërul muy muy bari waaye daal Cheikh Abdoul Ahad Amar daal wax dëgg yàlla maa ngi koy sant maa ngi koy sant maa ngi koy sant maa ngi sant tamit waa gox bi yëpp maa ngi sant waa gox bi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaw nag dañuy continuer ak jotaay bi ba tey toog ak ki nga xam ne mooy jëwriñ Mouhamed Fall ñu dégtal ko waxtaan ak moom tamit ci bis bi Mouhamed ñu ngi delloo siyaar bu baax a baax tey ñaan yàlla sama borom defal leen tawféex di ñaanal mun Mountakha Mbacké sama boroom yàggal ko fi di ko ñaanal Serigne di moom sëñ moo Modou Mbend di rafetlu bu baax tamit seen taxawaay bi boobaak léegi ci subaak léegi ngeen ànd ak ñun bis bi nga xamante ni jagle luñ ko kenn ku dul jàmbaari Serigne Touba ji muy Cheikh Abdoul Ahad mi nga xamante ni tasul woon yaakaari baayam ñu ko waxtaankat boobu doon waxee léegi nga xamante ni Serigne Abdoul Ahad moom sama borom yàlla dafa dogal Serigne Touba ñaan ko boroom boroomam Serigne Touba may ko ko yàlla sama borom may ko Serigne Touba kon yaakaar naa ni loola bu ngeen ñëwee ànd ci ak ñun ñu ànd ko ak Serigne Abdou Lahad Amar mi nga xamante ne nii mooy turandoom dib léppam ndax day turandoom ba pare mu féetewaat ca moom kon loola tawféex la rawatina mu ànd koog waa tawféex gi ndax fii ñu koy defee moom muy tawféex ku ne tawféex rek nga bëgg kon yàlla nañu sama borom yàlla defal tawféex ba lii nga xamante ni moom la ñu bëgg ci bis bi saa borom defal ñu ci ak ngërëm seen télé bii it nga xamante ni boobaak léegi ndax couvrir bis dafa metti subaak léegi toogu leen benn yoon yéen a ngi wër yéen a ngi gis nit ñi fu ne ngeen dem fa daloo dal euh, loola nag lan cay ñaan mooy mu bokk ci télé yi gën a rëy ci kaw ci Sénégal waaye sax mu doon tele bi nga xamante ne dina romb àdduna yëpp muy RTT ndax gis nañ seenub liggéey bu baax a baax ci Sénégal ci seen YouTube bi saa su ci nekk. waaw euh, comme ni nga ko waxee màggal gi ñu yëg ni ren ji euh, jéggi na dayo mooy fañ ko tegoon romb na ko. Euh, ñu gis ne tey waa taw waxuma sax waa taw feex mais fa mu njëkkoon dëkk di cité Senghor ak koñ ya ko wër ñoom ñëpp dañoo àndandoo ñëw fekk waa taw feex ñoom it ñu mel ni ñoo gën a bëgg bis bi lan ban kàddu ngay wax ci ñi nga xam ne ñoo dëkk ak yéen. alhamdulilahi rabbil alamin loola moom dañ ciy santaat yàlla ndax sëriñ bi moom tayam gu ne dafa gàcceel démbam te lépp lu ko waay di defal moom dangay tàmbali rek waaye sëriñ mooy yeggale ndax nit bëgg koo cant. làmb poosam gisu ca dërëm xëy def ci ay milliards loola nag sëñ waa ni toll sëñ Abdou nag saa boroom moo dogal ak kóllëre gu mu amanteeg waa Cité Senghor waaye it mu noppal leen ndax koo xam ni kenn mësu koo àtte kenn mësu koo gis ceefi ndaw kenn mës te gis fenn foo xamante nii teg nga sa bët ci moom loo xamante ni dina ak doya dal lay doon moo waral tey euh, fa mu dëkk ay waajuram it jiitu ko fa muy bàyyi ndongo ak euh, soxna Ndimbu mar dëkk fa dëkkiin wu rafet nga xam ni foofa kun fa dimbaliwul rek dimbaliwoo leen te saa su ci nekk seen kër ga doon daara Cité Senghor gépp ku ne nekk fa daan fa fanaan man mii di wax ak yow yàgg naa fa lool te booba am naa néeg ndax ñi may àndal ñëpp maa ko ci njëkk am néeg bu ñu defar ba mu jekk waaye bëgg kër ga ndax daara gi ñuy dund moo waraloon ñu tëj ko dem nekk ak Serigne bu Amar mi nga xam ni mooy rakki Serigne Abdoulahat mi nga xam ni moom it tasul te yaaka te te yàqul dara ci ànd bi ndax bari na sax ñoo fi gis tey jii yàlla jëmmam moo tax ñu ñëw fi te tey jii dëddu na euh, di ñaan yàlla sama boroom jéggal ko mboolee mi bàkkaaram te defal ko tawféex gu yaatu fa mu nekk dëkkale ko ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du ñu def it lu dul di sant waa tawféex gépp ndax wax di yàlla sëñ Abdou lax bi mu ñëwee ànd ak yéen dëkk ci dëkk bi da ngeen koo yaatal yaatal bi ngeen ko yaatal moo waral tey bi lii amee ku ci mel ni Serigne Saliou soxna mi bàyyi yitteem bàyyi léppam ànd koog waa dëkk bi yëpp rawatina soxna yi ànd ak ñoom ci taxawaay bi nga xamante ni moom la bis bi laaj. waa Cité noppal ngeen leen bu baax a baax ndax yéen da ngeen leen a wax ni sëñ Abdou Lahad bi mu jógee ci yéen xanaa da ngeen koo bàyyi ndax la la ba muy jógee ci yéen waroon ngeen cee langaamu yéen loolu ngeen ñu wan. ba tax bi mu agsee fii ngeen jël lépp jóg ànd ak moom ni ñu yéen du ngeen ci laal dara yaakaar naa ñi dëkk Cité Senghor ñëpp bi ñëwee dañoo toilette waaw kon loolu ñu ngi leen ci santaat bu baax di sant waa Cité Senghor tamit ndax ñooy taxul ñu bàyyi Sëñ Abdou Lahat ñu ngi ànd ak moom ci kóllëre ñu ngi ànd ak moom ci dëgg waaye ñu ngi ànd ak moom ci tawféex jërëjëf. léegi ñu ngi ci tëjtal yi ku xool jotaay bii ni mu taaroo euh, buñ ko waxtaanee ba noppi dañuy jox Serigne Bassirou Mbacké mi nga xam ne tey mooy kilifay jotaay bii ñu toog nii mu sànni ci ay kàddu Euh, ñaanal ñi nga xam ni ñoo ñuy seetaan ci àdduna bi yëpp yàlla dolli ci réew mi jàmm waaye bis bi nga xam ni sëñ Abdou Lahad Amar mi ngi koy taxawal mu taxawal ko téeméeri at yu tàmbali ren ñu ñëpp ñu fekke ko kenn bañ a manqué yàlla defal ñu xewal defal ñu sutura waaye moom defal ko gudd fan ak wér sàmm ko aar ko waaye defal ko ay xewal kon sëriñ bi ñu bàyyi la nga sànni. salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. ñu muy ñu nuyu mboolem mbokk taalibe yi teew yëpp di leen sant di leen gërëm ci teewaay bi ci subaa léegi wax de yàlla ñu ñaan lépp luñ fi defe rek suñu borom nangu ko defal ko wax de yàlla bi ñu fi ñëwee nuñ gisee jotaay bi suñu xol sedd na si am na si yaakaar ñu ñaan suñu borom li tax ñu daje fii yàlla bu neen di sant ñëpp rek di sant ab laat sugu mi nga xam ne moo suñu laat amar mi xam ne moo taxawal bis bi ñun nag wax dëgg yàlla xëy na eggu ñoo xamante moom waaye bi ñu xamante ak moom léegi wax dëgg yàlla lu baax lañ gis si moom ak mbaaxam a tax ak jikkoom moo tax ñu jàpp ko waxta ak rakam te suñu abibu suga tam wax dëgg miinante woon miinante woon nañ moom ñoo xarit la woon moom itam xëy na moom lañ njëkk xam si moom mi sëriñ euh, bi tey nga ñëw gis euh, mbooloo mi niñ fi mel ak fi nga xam ni sanc bu bees la mu ñëw euh, fekkante fi ñi fa mu dëkkoon ñëw fekk fi ñi nga xam ni fii la dëkk ñii nekk fi gën koo bëgg bis bi mu wane rek ni Sëriñ Tuubaa ay tànk kanam la am waaye amul tànk ginnaaw mbooloo mi yëpp loolu leen di gën a ñaax waaw loolu dëgg la loolu mooy wane liggéey suñ Tuubaa moom mooy wane boppam ndax bu fi ñëwoon mel na ne nu bokkut ak doxee ne ni sëñ bi bëgg boo demee ginnaaw kenn bu dikkee mbooloo mi dargo te lépp lu mu yëkkati ñu ànd saak moom kan moo wane yoon loolu nag ab sag la te ñu fekk si ndax maanaam comme que sëñ Tuubaa la wuyoo war na fépp fi nekk rek war ñoo gis ci dara si moom lañ koy xeebe loolu nag nit ki moom moo moo moo koy jëmbal si boppam waaw li ñu gën a dénk rek mooy yéen mu dëkk moom ngeen xam ngeen am ngeen loo xam ni moom lu jafe la ngeen gën koo jàpp gën koo téye ba xëy na suñu borom léeg bu nammee dimbali aw nit mën naa yabal kenn koo xam dafay ñëw sa koñ boobu pour xet leen loolu nag moom daa fekk suñu borom la moo xool nu koy soobee ak nu mu koy defee loolu ak sant yàlla la ñaan yàlla ànd bi gën a yàgg rek waaw lépp di gën a rafet saa bu ne waaw loolu daal mooy kàddu yi mbokk yi dañu naan alhamdulilahi rabbil alamin Euh, ñi ngi fi woon ci màggal gi nga xam ne Serigne Abdou Lahad moo koy def at bu jot euh, ren nag mu àndee ceeg télévision bu mag bi nga xam ne mooy RTT TV ñuy ñaan yàlla mu yàgg koo taxawee yàgg koo taxawee euh, bis bi nag ñi ngi ko tàmbalee ci alxuraanul karim ki ñuy wax sëñ imaam Ibrahima Ba. Diallo ñëwoon na fi ci suba wàcce fi kaamil beneen daara alxuraan ñëwaat tim wàcce fi kaamil ak bis bi ci la ñu yendu moom mu def màggal goo xam ni bëccëg la ko def euh, boobu ci suba ba léegi ñi nekkoon fi ak euh, ñi nga xam ni ñooy tàggkatu yonent bi ak jàngkatu xasida yi ak ñi nga xam ne durus xasida yi ñu ngi woon ci biir ñu àndoon ak tamit ay kilifa waxtaanoon ak ñoom waxtaan ak ñoom ci bis bi waaye mu ko doon defal turandoom bi nga xam ne mooy Serigne Abdou Lahad moom Serigne Touba tey ñu àndoon fekk waxtaan nañ ceeg tamit ki nga xam ni mooy rakkam di Serigne Massamba Amar mu wax ci ay kàddu yu rafet moom it waaye euh, ki nga xam ni mooy Serigne Abdou Lahad Amar ñu koy ñaanal gudd fan ak wër di ko yàlla sàmm ko aar ko bis bi nga xam ne moom lay taxawee fii ci Tawfekh yàlla na ci yàlla def jàmm def ci xéewal dolli ko sutura sàmm ko aar ko waaye bis bi ñoo fi teewoon tey di gërëm bu baax ki nga xam ni mooy euh, Serigne As ngoom ñu wutu woon ko fi rek ci kàddu gi mu nekkoon moom it ci dafa jàppoon waaye ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm ki nga xam ni mooy le président de regroupements des terres ki nga xam ne mooy le président di sunu PDG monsieur du sekk waaye di gërëm bu baax ki nga xam ni mooy Serigne Khadim Soumaré directeur programme bu RTT TV waaye di gërëm laa Linguère directrice ressources humaines waaye yorit li nga xam ne mooy commercialu RTT TV ma àndoon nag ci ki nga xam ne mooy DJ ñu gën koo xam ci aadama mu nekkoon ci caméra bi waaye di gërëm képp koo xam ni teewoon na fii ak képp koo xam ni gis na li nga xam ni xew na fii ci Tawfekh ñaanal ñëpp jàmm yàlla sàmm ñëpp aar ñëpp ñaa may ñu ñu dund ba déwén ñu fekke waat lu mel nii di ko ñaanal àddina bi waaye réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm defal ko mboolem jullit bisimilah rahmaani rahim